actualité ndox tamit ci li nga xamante ne mooy euh, information yi nga xamante ni yéen a ngi koy soxla ñu leen ci doxal tey nag naqar ak tiis lañ leen indil tey ji mu mel nag ñu ngi fii ci fi nga xamante ni mooy euh, Cambérène en face euh, géej gi ñëw nag fekk fi benn daal bu daanu ci ñaari soxna ñaar ñooñu la nag ay mag lañ ndax kenn ki mi ngi ay toll ci eh, quatre-vingt-quinze ans keneen ki ay atam mi ngi toll ci soixante ans ndax tamit ki juddu kat ki am quatre-vingt-quinze ans mooy eh, yaay ki nga xamante ne moo am soixante ans gis ngeen ko ni ngeen ko gisee nii eh, dal bi moo daanu seen kaw ba ñoom ñaar ñooñu la nag ñu jot a ñàkk seen bakkan waaye tamit nag pour ay information yi nga xam jot nañ koo jël gis nañ ne camion xeer bii nii di wàcce xeer yi ñoom ñooñu la nag ñoo ko jotoon a jënd ngir réfectionner li nga xamante mooy kër gi ndax sentiroon nañ ni kër gi dafa commencé woon a màgget ba dal bi commencé woon yëngu rek jamono ji nga xamante maire bi nga xamante kenn ki ñàkk bakkanam mi ngi wax ak euh, bi di ko xamal dal bi mi ngi di ko la nag la ki nga xamante bi daal di daan ci kaw mu jot micro nag ki nga xamante ni mooy euh, monsieur le maire ak euh, madame le maire waaye tamit nag jot nañu tàll suñu micro ak nga xamante ñoo jot a dëkk fii mooy habitants yi nga xam ñoo nekk fii ni mu nekk lu tiis loolu loolu metti loolu ndax tamit euh, bal bi bu mu daanee seen kaw euh, ñaar ñi ñoo ñaar seen bakkan ñett ñi nag moom alhamdulilah dara dalul leen topp leen ma mataale sama micro ñi nga xamante ne ñoo fi nekk tamit ñu daal di def ay témoignages par rapport ak li nga xamante ne moo fi xew. na am yoo xam dañ koy daaneel dañ jël suñu responsabilité mettre nañ ko depuis dëmb sax ñu ngi ci doon waxtaan ak sama waa service pour ne leen nañu reprendre tamit ñu xoolaat yeneen yi balaa ñu koy commencé. mën ko recensé xam nga recensé nañu 145 am na yeneen yu ci dolli rek tamit. loolu moo tax ñu demander à ce que ñu reprendre changement bi euh, tey jii lu fi am nii euh, am na feneen mais ñaan ñu ko yàlla mu tegu ci encore suñu kaw commune. mooy lu may lancé comme message surtout ci construction bi la xam nga kër yoo xam dañuy janoo ak géej gi ute na kër yoo xam ne nekkuñu ci wetu géej gi système d'érosion moo koy andi donc lu ñuy lu ñu leen di mën a wax surtout mooy type de fer ñuy utiliser nañ ko xoolaat. borom kër gi mën na jël ne damay faire maçon bi nekk début bi faire de douze laa choisir pour sama kër par par situation mu ne ko faire de dix laa choisir mais maçon bi mën na ñëw suy jënd mu jënd huit ou six mu ñëw defal ko mais du ci xam dara donc foofu mooy problème bi matériaux yi matériaux de construction yi mooy problème donc na nit ñi xoolaat bu baax a baax fànn boobu donc mooy képp koo xam ne dafa am kër. boo xam ne dafa nekk en situation de délabrement très avancé nañu signalé ñun ñu ñëw lu ñu mën a def su fekkee ne moom si boppam munu ko démolir ñun ku ñëw mairi be nañ de autorisation man amul ban autorisation buy ñëw devant la mairie pour démolition te si autorisation démolition mosul fanaan si man donc lu ñuy ñaan nit ñi képp koo xam ne bëgg na démolir sa maison na ñëw immédiatement na rapproché service compétent de la mairie lu ci war nañ ko def loolu moom maa ngi laaj si appel boobu nee lii daal ñun yëpp dañ ci war a taxaw muy fii muy feneen parce que fépp foo xam ne Sénégal la dañ ci war taxaw parce que ñun am nañ problème boobu tey euh, ministre bi wax na yeneen problème encore au niveau de la Médina mu ne ma situation boobu moo gën a catastrophique mais man lu ma concerné sama commune moo a concerné donc ñu fi dëkk ñoom lay waxal nag ku nekk jël ay mesures idoines pour de pareilles situation ne se reproduisent Voilà, moi j'étais absent de ma commune. J'étais parce que j'étais <coughs> parti assister au Forum mondial sur l'économie solidaire sociale. Euh, je pense que vers les coups de 14h-15 heures, on m'a appelé pour me parler de l'affaissement euh, d'une dalle au niveau de l'unité 15. C'est en ce là que j'ai pris la route pour venir m'enquérir la situation. Effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, à l'intérieur, cinq personnes dont deux mamans. Euh, l'autre avait 94 ans et l'autre 64 ans, qui est sa fille, qui a ans. Bon, sont ces deux personnes euh, qui ont subi quand même euh, l'affaissement de cette dalle-là, qui ont laissé la vie. Euh, les trois autres n'ont pas quand même euh, subi aucune blessure. Ils s'en ont sortis. ñu ngi fii ñu ngi fi ñu ngi ñu ngi fi ñu fee toog donc euh, lu ma ci mën a wax mooy li situation bu xaw a difficile la à décrire parce que ay waajur lañ d'après information yu ma am tamit ni am na kenn ki dafa ñëw seet si doomam jóge États-Unis li moom moo ci des euh, dal bi mi ngi doon bouger waaye euh, tamit ñoom cinq ñoom juróom la ñu woon si yi ñaar ñaar ñoo si ñoo si des keneen ki mu ngi am juróom benn fukk at ak ñeent keneen ki 94 euh, ans moom tam ñàkk na si bakkan donc ñaar ñooñu la woon donc sur le coup donc lii yëpp situation boo xam ne la bâtiment yi situation bâtiment yi ne bëri nañ fi au niveau des lu luñ ci jot a euh, ràññee 145 lañu ci 145 yooyu dëmb la ñu demander à ce que les services techniques ñu defaat le tour pour mën a recencer yeneen tamit pour suñ waree def opération bi fin du mois bi. ñu mën ko defandoo yëpp donc si diggante bi liy am donc na ñëpp fag ndax lii nag bugguñu mu dalaat suñu commune na nit ñi xam ne c'est vrai que ñii seen kër ñoo ko moom am na ñoo xam ne ay locataire lañu borom kër itam nañu xam ni ñooñu tamit ay doomu aadama lañ n'importe quellement euh, dara mën na leen daal te daal seen daal ils ont la pleine responsabilité te ñun ñaanuñu loolu raison pour laquelle chaque fois on le envoie des sommations dañu leen di bind xamal leen seen situation kër nii la toll fii la toll waru leen def li war ngeen fa génn mais parfois ils s'entêtent xam nga nit ki boo koy génne këram sax foog nga jaar yoon donc euh, loolu nag mooy moo xaw a difficile parfois tey sànq préfet mu ko doon wax am na nit koo xam ne mënoo ko génn këram noonu parce que moo ko moom foog nga mun na la yóbbu yoon te yoon su ne amoo droit génne ko mënoo ko génne waaw ñun lu ñuy mën a def mooy toujours mooy bind la ne war nga fa génn léegi soo entêté ñu wax ko euh, la direction de la protection civile xamal ko li ak lii moo fi am telle maison la ñoom ñu ñëw enquête la situation def seen rapport sur cette base la ñun mën nañu intervenir ne voilà lii mën nañu ko toj ou bien ñu ko toj. léegi c'est bon. non non non non ñii kañ ils sont assez jël nañ décision duñ fi fanaan. duñ fanaan incha allah duñ fanaan. jël nañ décision gisoo sànq ñu ngi ne ñu ngi toj miir bi de ah, l'autre côté parce que loolu mooy euh, loolu mooy loolu mooy difficulté bi. dañu ragal mur bi tam affaissé wu si ba euh, si kaw euh, dalu beneen kër gi loolu moo tax ñuy toj bi demain on va venir essayer bu soobee yàlla lii moom bu ci yàlla àndee dootu fi amati dootu fi amati ndax lépp loo xamante ne war nañ ko def rek dinañ ko def incha allah rabbi ndax ñii fi ñii ñii lii daal seen kaw rek tey incha allah duñu fanaan ci kër ci kër gi te képp ku sa kër mel nii bu soobee yàlla dinañ la dinañ dinañ la dinañ la wax na la nga de nga génn kër gi defaraat ko parce que ni tamit waru foowee bakkanam même kër loo ko moom lu mu neex neex neex neex kenn bëggul dee métti na trop. xanaa wax jël ay mesures rek lii bañ fee amati parce que tamit métti na daal métti na trop trop trop trop métti na trop parce que kër yi mel nii du fi jeex bari na parcelle te nawet baa ngi ñëw ku nekk xam na ne parcelle dafa mën a bari ndox te lii. nii nii lii bu bu dee bu dee kër yu mel nii bari nañ fi kon lii bu ñu ko yemalewul fii day dépassé lii te incha allah dinañ ko fi yemale. ñaari nit ñaari nit loolu lañ ñu wax ñaari nit. non amul ay blessé ñaari nit parce que boo gisee camion kii bi sax xeer bi sax maire bi moo ko wàccee. te moo wàccee camion xeer ba pare wax ak maçon bi ne ko dal bi mu ngi mu ngi yëngatu mais dinaa indi xeer dinaa indi biri gi bu subaa nga commencé liggéey bi. dégg naa dafa dugg ci biir kër gi di jox maçon bi xaalis fa fala fa la fa la fa dundam yem. merci beaucoup. merci kon mi ngi noonu comme ni ko comme ni ko euh, euh, madame la maire waxee rek mu mel ni nag ñaari meer yooyu la nag euh, jotoon nañoo sentir li nga xamante ne mooy dal bi mi ngi doon bougé waaye tamit nag terewul woowoon na ab maçon ba wut ay li nga xamante ne wut na ay maçon ba wut li nga xamante ne mooy ay xeer mooy briques yi ñu gisandoo. mooy briques yi ni ñuy gis uh, fii nga xamante ne mooy uh, uh, nekk ci li nga xamante ne mooy kii bi camion bi maire bi nga xamante ne moo am 60 ans moom moom la nag moo ko fi daal di indi juste ngir daal di amaat li nga xam ne mooy kaaraange ci këram waaye tamit nag yàlla moo ko tuddee neneen waral nag bi mu waxee ak ba pare ba xam ne ni nag li nga xamante ne mooy briques yi da jënd ngir ñu gën a dëgëral li nga xamante ne mooy dal bi ci la dugg ci këram fi muy joxee ki nga xamante ne mooy maçon bi xaalis rek ci la affaire bi daal di daanu ci kawam mu daal di fay jot ñàkk bakkanam am lu ci mënti am tamit nag eh, dangeen ngeen di topp Dakar Media TV rek dinañ ci am lu leen leer incha allah ñaari meer ñaar ñoo xamante ne nag kenn ki yaay la kenn ki doom ñoom ñaar ñooñu eh, ñoo jot a ñàkk seen bakkan ci li nga xamante ne mooy dal bi daanu fii nii mu mel ne li nag nekkul lu bees nekkul lu bees ndax jotoon naa am fi nga xamante ne mooy eh, Euh, Médina ndax tamit ba kenn xale bu jigéen boo xamante ne mi ngi doon jàng jàngale daara daa jot see ñàkk ba kanam euh, tey jii nag ñu ñëw fii nga xamante ne mooy euh, parcelle mu mel ne nag genre kër yu mel ni bëri na fi lool lool lool lool lool waaye tamit gis nañuy kàddu ki nga xamante ne mooy monsieur le maire jot na wax nag dina jël ay li nga xamante ne mooy matukaayam ngir genre kër yi nga xamante ni seen état baaxatul mu daal di koy Euh, démolir wala tamit nag ñi daal di génne ñooñu nga xamante ñoo fa dëkk ba nawet bi euh, passé ndax tamit nag nee nañ na nawet bi mi ngi ñëw tey tamit géej gi jege na leen lool lool lool waral nag li nga xamante ne mooy kër gi day dafay tooy ba waral nag yenn affaissement yi di fi am